ngir dundal weeru koor wi nga xam ni ñépp xam nañ fi ko Sëriñ Tuubaa tegoon ci wormaal ak màggal ñu di ko dundal dundin wu sell ci ñaari yëf yi nga xam ni bu amee liñ bëgg ci weeru koor bi danañ ko am te moo di xam ne nii woore ak am lu ndoge bu ngoon jotee kon nee na mi ngi leen ci sant bu baax di leen ci gërëm yéen a mboolem ñi aji ci jumaa ji waaye di nuyu ñi nga xam ni ñoo fi toogal Cheikh Mouhamadou Moustapha ibnu ma Massamba moom mi nga xam ni mooy borom jotaay bi moom lañ ko jagleel mu yebal fi waa këram sëriñ Abdou Rassakh ak ñi mu àndal ñëpp moom it di koo xam ni lii ñuy def ci biti muy bendeel nit ñi bendeel ga bendeel nit ñi ngir bëgg ñëpp am nañ doge kenn jiituwu ko ca ba am ci cër bi mu ci am te loolu bu amee dañuy wax ni laa xarwa ndax ku xam Seex Masàmba xam ko ci bernde xam ko ci lépp ki ko fi nekkal bu wuutoo sëñ bi ci loolu loolu kenn ko ko nattable waaye mi ngi dellu sant bu baax a baax ki nga xam ni moo doon def waxtaan bi waxtaanu tey wii ndax waxtaan wi boo ko dégloo ba mu jeex mooy li sëriñ bi waxoon bii te def ko ijmaal moom la taqali fii ci jataay bi moom sëriñ Maam Mor mi doon def waxtaan wi la sëriñ bi waxoon bii ci kumte gi rek loolu la tàqale ci waxtaanam lépp ba mu gën a leer nañ tax sëriñ bi ku ne xam ne amul jotu toog di wax wax ju yàgg waaye bu waxee la mu war a wax rek ñu si leeral ko la mu ca bëgg a wax lépp mu leeral ko kon moom itam sëriñ baa ngi koy sant di ko gërëm di ko ñaan waaye di ñaanal mboolem ñi nga xam ñoo nar a topp ci ginnaaw ci bis yi di ñëw ngir ame jataay bii di ci xam de koor di ci xam de diine ci xam bi ñu ngi leen ci sant bu baax di leen ñaanal mu àgg ci jàmm mu fekk ko ci jàmm te jàmm rek xew ci barkeb Serigne nag nee na di soññ mboolem taalibe yi daayira yi ak defkati lu baax yépp luñ man ñu jàpp ko ci lii nga xam ni moom la waa Moukhaddamatoul Khidma taxawal te mooy iftaar yi mooy ndogu yi ndax mbir la moo xam mii yonent bi soññe na ko sëriñ Tuubaa soññe na ko ñu lu ci baax lu ci waay man nga xam ne sa bopp nga di ñaan nag ci barkeb sëriñ Tuubaa mi nga xam ni moom la fi nekkal te nañ ko waxe woon ci woote bi weesu lépp lu mu ñaan ci moom suñu borom dana ko may nee na mi ngi ñaan suñ borom may nu ñu woor woor kooru jàmm amuk wér am kàttan am jàmm ami xéewal ba mun koo def ni ko suñu borom bëgg te am ci ngërëmal Sëriñ Tuubaa mi ngi xam ne moom lañ koy def ci dëkkam nee na am na ci xel ma dal lool ndax Tuubaa gi ñu koy defee ak réew mi ñu koy defee te ci rawatina Tuubaa gi ñu koy defee rawatina fii ñu defi waxtaan wi fii ñu defi bernde yi nee na jàpp na ni képp ku fi teew lépp loo sàkku ci suñu borom sàkku ci Sëriñ Tuubaa suñu borom dana la ko defal nam la gën a noo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan ñu teewe ko naka ni déwén te kenn bañ a mu mi ngi ñaanal it njabootu sëriñ Tuubaa gi sëriñ Tuubaa dafa suñu borom dafa leen jàmm liñ yéene ci liggéeyal sëriñ Tuubaa ci weer bi ñoom njabootu sëriñ Tuubaa gi góor ak jigéen kilifa diine yi yéene ko liggéeyal ci weer wi ci ñëpp suñu suñu borom defal leen ci lu ko wér seen jot kàddu yooyu la sëriñ bi waxoon nañ ko jottali ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.